bi dañuy dem ci document bi niñ leen ko doon waxee ñuy waxtaanee wàllum Covid 19 bi xam ngeen ni euh, ñetti at ci ginnaaw daanaka la àdduna wërngal këpp di dundu euh, mbas moomule bokk na ci ay nit yu bëri yu ko amoon ba xaw tuut ñoom ñu euh, muy ji sunu borom ndax jafe-jafe yi nga xam ne jàngoro bi juraloon nañ leen ko bokk na ci mbay Jacques Diop nekk conseiller technique ca ministère des sports nekk suñu naataango moom nag mu def ay témoignages yu am solo ci ni mu dundee loolu lépp mu dénk ko Abdoulaye Diop Diop dañ ak moom ci waxtaan wi. tey euh, dañu doon def rek fàttali ci li nga xam ne mooy jàngoro ji nga xam ni euh, faat na bakkan yu bëri wante buñ ko waxee xel yi dina dem ci yow ndax euh, dund nga ci ay situation yoo xam ne doy na waar trop ndax feebar bi metti woon na ba ñu bëri jàppoon ni sax xëy na sa dund ci lay yem ba sa famille sax xawoon ñàkk yaakaar waaye yàlla def tey euh, ba léegi yaa ngi fi ndax euh, mun nga ñu ñëwaatal rek euh, ci situation yooyu. métti na nag Covid bi parce que Covid bi dafa fekkoon ma voyagé woon dem Moscou après bi ma demee Moscou jaar Turquie war fa def benn genre escale mais bi may ñëw ci avion bi Turkish Airlines neexul ba neexul mais j'étais sceptique parce que boobu ñu ngi wax ne ay mesures barrières. ay euh, patati patata mais dans l' avion dafa mel ni Ndiaga Ndiaye parce que y' avait presque sept cent et quelques passagers dans l' avion mais tous les gens étaient côte à mais bi ñu ñëwee fii ma yegg fi vendredi la nuit toog sa ma kër génn ma reposer. mais maa ngi sentir ni am na lu may dal mais xaw ma ni Covid la parce que pour man dama ni rek ah fatigue du voyage la quoi parce que dama jógee dans une zone boo xam ne il faisait extrêmement froid del soit bo donc une zone boo xam ne pratiquement subsaharienne comme le Sénégal mu tàng donc xam naa changement variation climatique bi moo ma jàpp ci wàllu woowu ma jógee fa dimanche affaire bi di sentir lundi ma yeew ma jóg sama yaram bi di metti man comme sama jabar a travaille à l'hôpital général Idrissa Pouye de de de et mu yëpp ma bi ma yóbboo un médecin m'a consulté ne ma non lii c'est pratiquement une grippe saisonnière. Ah, donc man moom ma ñu defal ma perfusion yooyu yëpp parce que on m'a retenu là-bas pratiquement de dix heures jusqu'à presque dix-huit ñibbisi mais durant toute la semaine mënatuma lekk mënatuma euh, dem toilette. mënatuma nooyi ma am ay problème respiratoire sama ndigg li di metti du ma mën a tëddee benn côté guddi gi damay fanaane di onk ba bër set sama waa kër sama jabar ak sama doom yi dañuy jël ay serviette di ko tremper ci suma yaram bi di ko tremper suma yaram bi parce que je souffrais des fois dama daan yóbbu ci kaw terrasse bi man kenn. mais quand je me suis rendu compte que pendant presque 15 jours j'ai pas mangé je ne prenais que des jus de fruits j'ai et de l'eau je ne mangeais pas je ne à perdre la voix après. soo benn cousin boo xam ne su ma yaay moo topp ci papam Tidiane woo ma laaj ma gëm la gëj a gis ma ne ko maa ngi fi dama feebar ma qu'est-ce qu'il y a ne man ma qu'est-ce qu'il y a ma ko dama xaw a feebar quoi mu ne ma ah boo mu envoyé ma ay garab mu ne ma si ça ne s'améliore pas dis-le-moi mu envoyé ma ay garab mais je me suis rendu compte que pratiquement euh, en tout cas ça s'accentue de jour en jour li dem def analyse sama jabar moo dawal oto man maa ngi tëdd ci oto bi mënatuma sax xaw ma sax fu ma nekk mais bi ñu demee quand on m'a fait des

defal ma ko pendant presque quarante huit heures xaw ma fu ma nekk mais quand on a commencé à me traiter et automatiquement mon sang ne circulait plus parce que le sang avait coagulé et les gens avaient peur les médecins même le professeur avait peur ils ont fait appel heureusement que il y avait le médecin Kadia Diallo il y avait le, le docteur il y avait ñoom Marie-Louise ak ñoom docteur Bilo ils m'ont vraiment soutenu accompagné vraiment après ñu ne ma il faut ñu dóor la benn piqûre Lovenox xaw ma fii ci biir mais quand on m'a au moins injecté euh, vraiment cette dose xaw ma ndax damay dund wala dem de j'étais dans le coma honnêtement parce que ça a ça tellement fait mal que et quand ils sont venus pour au moins une seconde injection j'ai refusé après Marie Marie-Louise m'a dit monsieur Diop fii moo baax ci yow parce que defal nañ la ay ay perfusion sa ñaari loxo yeeg mais biir pour sa sang gën coaguler il faut ñu def ko ci biir métti na trop mais muñal ma xam ne donc j'étais entre la vie et la mort honnêtement j'étais entre la vie et la mort ma accepté mais mu metti trop trop trop trop ma muñ ko mais après nag le sang a commencé à coaguler moi je en quelque sorte ñoom pour ñoom sax j'étais un miraculé parce que képp ku mu daaloon foofu génn nga àdduna après ci laa xam ne suñu borom mais l'autre aspect aussi mooy moi je savais que pendant la nuit que c'est la nuit que je souffrais le plus et il y un moment damay tëdd ba guddi affaire bi di metti mais dafay am benn ngelaw bu sedd bu ñëw sama yaram après damay damay je me rends compte que rek man peut-être que nit ñi ma nekkal wala ñi ma amal jàmm ah ñoo may ñaanal te ñaan yooyu ñu ngi ñëw bi ñu toogee ñu ñëw ñu ne ma kat léegi tale nga quoi ma ma mais génn goo dañuy suivre dañuy continuer traitement yi. may génn chaque jour bi ma génnee ma ne xaaral ma génne doxantu parce que moi j'étais dans une cabine bi ma génnee doxantu dans une cabine et en toute honnêteté en toute honnêteté mais dama dellu sama biir néeg parce que dama gis dans une grande salle ñoo xam ne ils étaient dans des situations yoo xam ne alarmantes mais dama dellu jàpp julli ñaari ràkk ñaanal ñooñu parce que je sais que ni man mi nga xam ne j'étais dans cette situation là yàlla génnee ma ci donc damay ñaanal yooyu yàlla ñooñu génnee la ci. mais après kon continuer traitement yi ba ma kii ñu ma tel jour mun nga faj sama doom bii léegi jëndal la kii bi rakki moom moo doon ñëw chaque jour te du ma gis chaque jour mu ñëw indil ma lu may indil wala su yere wala yooyu te du ma gis imaginez vous vous avez une fille qui vient vous voir mais elle peut pas voir et vous êtes c'est comme si tu étais dans une prison vous êtes complètement isolé de tout. ci. non man xamoo tax du ma ñàkk yaakaar dans la vie je ne perds jamais d'espoir parce que. yére bi ma sol sax dee moo ma ko gën a jege maa ngi nii di waaj a dem juma mais mun naa génn léegi yàlla moom ma mais du ma doon xalaat man sama njaboot lay xalaat parce que man chaque fois man les gens savent que je suis un papa poule man sama njaboot dama leen fonk fonk boo xam ni ñoom ñooy sama xarit man aw ma association aw ma club aw ma dara si j'ai un club une association c'est ma famille donc j'avais des petits enfants yoo xam ni je pensais à eux parce que c'est ces enfants quand tu as presque trois filles et un garçon qui xam ni yow peut-être que ñooñu ngay ñaanal yàlla tey yàlla aar mais aussi tey su ma yàlla jëloon aussi xam naa ne yàlla peut-être que moom moo leen sàmmal boppam donc. loolu aussi ngeen très difficile très difficile mais aussi j'ai j'ai une, une une femme une femme très brave qui m'a soutenu dans les moments les plus difficiles parce que ma femme bi ma feebaree xam nga doo tal joxe euh, dépense doo tal dara mais c'est elle qui faisait tout dans la maison et quand je suis tombé malade elle partie voir les gars pompé kër gi xam nga bi ñu pompé kër gi ñu ñëw def test xale yeeg yëpp mais c' est elle qui tout en charge tout tout en donc mais sama doom yi des fois on se parlait au téléphone papa yaa ngi tere gëj nañ la gis kañ ngay ñëw donc imaginez-vous tu des enfants ki te gis papa kañ ngay ñibbi si te yow xamoo ndax di nga dellu si wala déet parce que chaque jour nga gis brancard bi yóbbu koo xam ne génn na àdduna donc tu te dis que toi tu peux être aussi le suivant C'est comme si, par exemple, tu, tu, tu, tu sors de, sa, de ta maison, tu te dis que c'est la dernière fois aujourd'hui que je passe la nuit chez moi. Donc, c'est comme ça que je, réagis. Chaque jour, même quand je sors de mon bureau, je dis que tel est mon bureau, donc c'est comme ça que j'ai réagi. Mais c'était dans des conditions extrêmement difficiles. Moi, j'étais presque dans un point de non-retour. Euh, merci beaucoup Mbaye Jacques Diop pour ce témoignage émouvant une pensée euh, ci ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo ñàkk seen na ci mbas mi waaye njaboot yi nga xam ne itam ñu ngi koy dund euh, ba tey muy mettit boo xam ne du deñ waaye ñii dund ak séquelles yi muy mbas mi nga xamante ni bàyyi na fi ay souvenirs yu méttee métti élage Malick n'est-ce pas très rapidement. oui oui vraiment ce poignant. Mm -hmm. euh, ça que Mbaye euh, traversé na moment yu métti mais ànd ko ak gëm yàlla. et c'est ça le plus important parce que dina am situation bu nga xam ne boo ca tollee euh, sa sa sa imaan moom moo lay dimbali maanaam sa gëm yàlla moom gëmoon na ni yàlla moom moo ko teg koy teg mais li ci gën a euh, daw yaram mooy moment yi nga xam ne moom xalaat na ni à tout moment mun na dem parce que ay nit yu nga xam ne ëppalewu leen dara gënu leen ca yàlla ñi ngi ci wetam ñu leen di teg ci ay balankaar di leen yóbbu moom moment boobu mu ngi xalaat ni xëy na man maa ciy topp mais bu ma ci toppee njaboot gi ma bàyyi gannaaw nga xam ne ñooy sumay xarit ñooy sumay lépp sama àdduna yëpp sumay doom la ak sama njaboot bu ma leen wanee gannaaw ñooñu la doon xalaat donc tey mu nekk vraiment moment yu nga xam ne nit ku nekk war nga ci bàyyi xel. Mhm. xam ne euh, boo waxee mu egg yàlla la neex. Mhm. te bakkan waru dàll la fu ko neex yàlla suñ borom fu ko neex la koy la koy jëlee mais euh, feebar aussi ñu gëm ni jotewul dara ak bakkan. mën nga feebar ba nit ñi amatuñu espoir ci yow yàlla suñu borom delloo si la mais mën nga xëy ni cocc jóg dox daanu dee donc yàlla rek moom moo xam mais yàlla nañu yàlla may wér-gu-yaram mm. yàlla nañu yàlla may gudd fan mm-hmm. yàlla sàmmal ñu suñu njaboot mm-hmm. te itamit ëllëg bu ñuy dem ñu bàyyi fi way wu rafet amiin yàlla nañu ko yàlla defaral merci beaucoup Mbaye Jacques Diop pour euh, témoignage yi nga xam ne